ɓeɗo jiinilam abiɗe salaamaaleykum mbokk sénégal ñu ngi leen di nuyu siyaar nañ leen bu baax ñu ngi leen di dalalaat jàmm ci senego point com seen euh, yeneen euh, plateforme muy muy facebook twitter instagram youtube ah yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen baalu àq di baal ñëpp àq baalu nañ leen àq di baal ñëpp àq waaw ak fu waay nekk rek ñu ngi lay jéggalu ñu ngi lay baal ak ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu nekk Sénégal ñu nekk bitim réew ñu nekk bitim réew yéen xam ngeen man xam naa xam ngeen ne yéen laay waxal yéen tamit xam ngeen ki kiy wax ak yéen tey nag dañu ñëw këram seeti koo xamante ni xëy na mosul génn télé mosul wax wala boobu bu waxee benn yoon la te yàgg na trop xam naa ci diggante bi jàlloo Diallo madame euh, naka madame Guèye Ah, soxna wu saa kajoor lañ ñëw fees tey xam naa loolu dina nekk surprise ci leen ci yéen euh, mais alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax jàllo jéeri dama ko fekkoon muy ndékki di teg di ci boole añ ndékki ak añ la doon boole mais <laughs> après tabaski ndékki ak añ moom lay def te dee na yàpp tabaski bi doyalu gu ci xadi maa ngi lay nuyu dafa mën ree nag day ree rek tey ngeen gis gan di cinéma nag <laughs> xadi maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay fay mm. maa ngi lay fay. di la ziar lu bare bare di wax kontaan naa si ñëw bi ngeen fi ñëw tey mm. ah, waaw du nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp di wax ñëpp déwéniti baal leen ma ak bal naa leen yal nañu yàlla boole baal ñu fekk ko ay déwéni déwén di ñaanal sama jëkkër nag mm. moom si moom lay commencé di ko dellu nuyoo ca France bu mu nekk mm. di ko ñaanal géey yu wéral tane yow bu la dara jot géey njoor ba pay xale yi euh, man doom baa laa <laughs> baal ma ak <laughs> Uh-huh. parce que dama ñëw fekk la ngay ndékki man xam nga woo ma ci ndékki mi ndax li nga sant Diallo xam nga yéen ñi sant Diallo moom mooy loolu ah boo bi nag hmm. bàyyi bi bàyyi bi <laughs> <laughs> ndékkeegu ma ndékkeegu ma <laughs> mais alors naka naka tabaski bi ça s'est bien passé waaw comme dugg nañ ci bisimilah génn ci alhamdulilah waaw dañuy dellu sant yàlla rek hmm. parce que doon na gën a neex nag hmm. doon na gën a neex nga xam nga nga feete ko famille bi ensemble neex na nag mais daa ko fi manqué. Hmm. lan moo ah, sama borom kër. sa borom kër waaw moo fi manqué wax dëgg yàlla bëggoon naa nag ñu feetee ko doon ñëpp. Hmm. affaire bi neex ba bëgg a dee gën a yaatu comme ni ñu ko doon feetee chaque at hmm. mais yàlla ak dogalam jaam ak yàlla ak pexeem jaam ak dogalam. yàlla ak dogalam yàlla ak dogalam jaam ak pexeem. déggu mhm. olof déggu olof ñu ngi koy baal. <laughs> Uh-huh. mais monsieur manqué na fi mi ngi nekk à mais tabaski bi. yéen a ngi doon déggante. waaw si si tout le temps tout le temps sax instant dañuy déggante day woote di xool ci luñ nekk. njaboot geeg yooyu wax dëgg yàlla. Mhm. moom moom fu nekk nii bàyyiwuñu benn yoon. Mhm. bàyyiwuñu benn yoon tout le temps day xool ci luñ nekk. Mhm. ndax ñu ngi lekk ñu ngi naan xam nga kii nekk di toppatoo si ñam yaa ngi fee yaa ngi France bi nga nekk mais teewul tamit. yaa ngi xool di nga xool ndax sa njaboot sa njaboot ñu ngi ci jàmm. su ma feebaree man du am jàmm xale bu ñu feebaree du am jàmm te moom day fàttali sax moom dafa feebar. xam nga kooku mu ngi lay mi ngi foox de waaye xel mi yëpp a ngi fii mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu xam nañ parce que dañ ci dañ ciy waxtaan lu lu bëri bëri mais à part tabaski bi ni mu ni mu manqué xam naa gëj nga ko gis ñaata léegi sax mm, def na trois ans trois ans. 2018 mhm, jusqu'à 2021 mais boo ko gëjee gis yaa ngi koy dégg yaa ngi def appel vidéo di xool kanam gi mu xool sa kanam si maa ngi def appel vidéo muy si kanam gi nii quoi. <laughs> waaw mënu see ñàkk nag mënu mm. see ñàkk franchement mënu see ñàkk parce que maa ngi maa ngi dégganteeg moom maa ngi mm. def appel vidéo mm. mais. xam nga de présence bi daal ah, moom moom waaw moom la ñëpp soxla daal hmm, mais hmm. dañ koy ñaanal wér rek xam nga yàlla defaat ko bu mu ñëwaat ñibbi si waat sunu sunu sama wet incha allah moom na ko <laughs> wér moom soxna ah. na ko mais ñun xam nañ quoi mm-hmm. bu ñu xoolee début mm-hmm. ak tey mm-hmm. sant yàlla bu baax a bi léegi nii nii nan nga koy dundee léegi moom nii nii nii actuellement nii nii waa sant yàlla rek hmm. mooy li may wax sant yàlla comme mi ngi doxi soxlaam ah lu mu mën lu bëri mu mm. daan la ko mm. ñu ngi sant yàlla bu baax nag mm. na yàlla gaa yi yokk ñaan yi rek waaw ah, ok mm-hmm. mais metti na woon nag mettoon na trop nag franchement le début fekkee naa ko mm-hmm. woon ci situation boo xamante ni ku fa sax mm-hmm. doo bëgg bëgg a dem nii metti woon na moom Pam Maguette woon na trop man ek xale bu ndaw nag man ek xale bu ndaw di dund ak moom loo xam ne nit mënu koo xam bu ñëpp demee man lañ fay bàyyi ci kër gi. Mhm, mhm. bu nit ngi di nelaw man maa ngi xoole ba bërsët. Mhm, bu nit ngi di xoole ma xoole ànd ak ñoom. kon dund na moom loo xam ne. du ko mën a expliquer nit waaye dañuy sant yàlla rek. parce que fekkee naa temps yooyu sax man ñoo la gisee tey jii dama ne alhamdulilah sant yàlla quoi temps yaa ngi jeex tàkk. <laughs> dëgg la ndeysaan nit bu la xoolee sax kër ga sax kenn du fa bëgg a yàgg. la mais léegi sant yàlla. léegi yaram bi naay na léegi xeesaay bi gën na ñëw. <laughs> sant yàlla quoi mais alors nga nekkoon nag moom demoon na sax ba kër gi daanaka li fa nekkoon sax bareetul woon. waaw dëgg la surtout loolu amul woon toogaay toogukaay sax amu fa dëgg la dëgg la parce que benn instant xam nga rek mooy affaire kii parce que léegi moom nit ñi boo amee. Mm-hmm. ñu ànd ak yow. Mm-hmm. boo ñàkkee ñu dem bala mm. boo feebaree nga xam ñi la bëgg xam ñi la bañ xam mm. say nit mm. xam say nitu démb xam say nitu tay xam ñi la bëgg xam ñi la bañ tey boo feebaree tey jii ne xoolal sama kër da doon fees dell man kër bëriwul woon nit mais da doon loo xam ne pour ay nit yi fa doon ñëw a tax mais da nga dem gis nga yow ñëw nga fa dem nga bu ñëw nga ba bu musaa bu feebaree bu mu feebaree gisatoo fa kenn ay benn nit nga fay gis ay ñaari nit nga fay gis loolu lay tax rek mu gën a xam boppam. Hmm. parce que nit ñi léegi boo amee ñu ànd ak yow boo ñàkkee ñu bala. Hmm. looloo fi nekk boo hmm. feebaree ñu ànd ak yow boo feebaree ñu daw. boo boo ñu ànd ak yow. ça veut dire que succès la ñuy ànd tege yow. ah loolu yëpp ay la la. mais tamit lenn lu ñuy jaaxal. dama dégg mu wax ko mu ne moom dafa sant yàlla bu baax a baax am soxna si man yow mais Xadim na nga nekkee bay benn xale bu ndaw rafet xees macha allah nekk xale bu ndaw a ndaw nekk sa biir àdduna. sa jëkkër tawat ay at nga toog muñ ko waaw waaw waaw parce que nag moo ma ko wan mm. moo ma wan li tax ma téye ko mënoon mm. naa mel ni yeneen xale yi mm. bu feebar rek ma ne ko may ma baat mais yàlla ma si yàlla yàlla xettali na ma ba ba léegi nii maa ngi ànd ak moom si ngor parce que moom moo ma wan ngor moo ma wan ngor parce que Abdou moom macha allah même lu mu la wan wan ngor mais muñ boobu noonu noo yow gay ne nga quoi waaw ah, noonu la Paa Maguette dama gis fa soxna Faa Wade Wele gis maam jaaro bu so si yow mhm. gis euh, nu mu tëddi soxna euh, soxna Lalla Aïcha mhm. xool si Aline si Toy Diatta mais ñooñ ñi ngi fi ba tey mhm. parce que nee nañu jigéen ñu mel noonu dañu man sàng rek maa ngi koy wax ci oto bi maa ngi naan jigéen mu mel ni dafa raar waaw Paa xam nga man xale laa mais xëy na boo nekkee waajur yoo xam ne tey bu ma jotee Abdou Sa dañ ñaan yaa ko tooñ mm-hmm. bu fekkee sax moom a tooñ dañ naan yaa ko tooñ dama nga toog sëy mm-hmm. yow yaa bëggoon xam nga mm-hmm. dañ lay gën a poussé nga toog xam nga tey boo demee di réclamer sax da ngay da ngay da ngay da ngay parce que dañ naan la demal nga toog muñ waaw parce que nag sunu sama waa loolu lañ ma loolu lañ ma sant loolu lañ ma wax na ma ma metti da ngay metti nga toog parce que yaa ko bëgg li nga doon muñ dafa metti woon de mais waaye sant yàlla trop man xam naa metti woon na ma metti woon na trop parce que kenn fekk siw ma fekk siw ma ma doon dund lu metti nag loo xam mënu ma ko wax nit mais kenn fekk si nga toog rek ma toog rek ma toog di muñ rek ba nii bu ñëpp xëyaan man la ñuy bàyyi ci kër gi. demoon na sax ba lekk day jafe. waaw day yéeme. xam naa ci dara. day metti trop nag waaye sant yàlla rek. daa ngeen toog ay fan doo leen la waaw doon na am nag des fois mais dañuy sant yàlla rek. Hmm. parce que bu ñu toogee kii yàlla dina indi xéwal ñu togg. Hmm. dina yàlla parce xale yi bu ñu nee euh, malheureusement nag ba kenn ku góor ku mag ki fii la nekkoon sama yaay. kër gi fii la nekkoon Baye Zall. Mm. Mm. chèvre moo nekkuloon ak ñun. Mm. Mm-hmm. chèvre moo nekk ak ñun. mais sant yàlla rek comme yàlla mu ngi doon def Abdou lii daal ba nii mi ngi tare daal sant yàlla. daan nga wéet yow kese ngay jooy. man <laughs> non bëgg ma di jooy si kanamam nag. bëgg ma di jooy si kanam mais toogee xalaat lu sama rongo day tuur. bëgg ma parce que dañ ko yokk stress moo tax. dañ ko yokk stress. Mm-hmm. ñu ko yokk stress xam nga nit ko feebar nga toog naan ko léegi lii wala ngay jooy ci kanam moom da ngay mm-hmm. gën a yokk da ngay gën a yokku feebar mm-hmm. xam nga nit lu mu mënul dem ba mënatu ko mm-hmm. boo toogee di jooy ci kanamam rek day yéeme toogee di jooy ci kanamam rek day yéeme kon am na booy defee yenni sax da ngay dem làqatu benn ko rek toog jooy so pare fampasoro nga nekkaat ci nit ñi man dama ko doon fekk muy tëdd sax feebar ba sonn tëdd ma ñëw dugg ci néeg bi di ko eh, eh, ay géy de ree eh, ay de ree xoolal mu xë mu tëdd fi mu tëdd ndeysaan ma nekk no dugg plané kaf ree xam mais au maa ngi dund lu garaaw. xam nga ñëpp kañ lañ xam ne man maay jabar Saa Kajoor wala sama dafa feebar ba ma defee interview bi Bantamba. Bantamba. mais dama doon dem marché sax bu ma gisoon sama ngeen njëkk a gis. sama bëñ ngeen njëkk gis parce que dama ku ku ma gis daal du ma gis ne kii jëkk fa yor ju feebar. Mm-hmm. Mm-hmm. uniquement da nga may gis may kaf di xam nga nga naan kii dara jotu ko. Mm-hmm. mais bu ma defee interview bi Bantamba si lañ xam ne kii jëkk ji daf feebar. te au fond li ma doon mel dama toog di ko wax nit. te maa ngi doon dund lu garaaw ak moom. mais du ma ko expliquer nit. te bu ñu gisee loolu lañ ne ah kon yow yaa jabaru diw ko yow diw def feebar ay mère. naa ma yow li nga mën de ñun yow doom li nga mën ñun mënuñu ko. naa ma yow doom li nga mën ñun mënuñu ko bu nekkoon ñu da ngay gis ñu changé affaire yooyu man ne ah xëy ku nekk ak ni la yàlla bindee. xarit de moom nit ñi ci kafak ree lañ ko xamee xam naa looloo tax. Mm. te du ma nekk di man di manifesté wu. amul sens. Mm, mm, amul sens amul sens yow boo yow boo yoree ku feebar nga feebar ànd moom kan moo ci kan moo dimbali morom bi. kenn il faut am kenn ku tane morom bi. Mm. il faut am kenn ku tane morom bi. Mhm. tey jàmbaar dëgg nga booy sax damay sentir yaa ngi a jooy mais da nga koy maîtriser. dëgg da nga ko jàng wala dafa sa yaay moo ko wax wala kat moo la ko da ngay da koy maîtriser. <laughs> Pape Maguette yaa ngi aay de. <laughs> Euh, non non non non dara rek du dara xëy na nag. Hmm. mooy loolu. <laughs> ndeysaan dina jooy dina ree intérieurement yaa ngi jooy intérieurement wax nga ci damay gis mu taa pour mu génn sax day jafe. jàmbaar dëgg nga. te royukaay nga quoi. dëgg la li may wax. Hmm. royukaay dëgg ngi nii. Hmm. te toll nañ jamono joo xam dañ naan euh, jigéen ñi sëyatuñu. dëgg la toll nañ jamono joo xam dañ naan jigéen léegi alal la ñuy toppee nit. dëgg am na ñoo xam dañ naan jigéen ñi. siiw la ñuy toppee ni na nga siiw mm, na nga jantal na am xaalis mm. na ngay génn télé rek ñu topp la bëri na fi mais yow loolu du sa du sa cas quoi nga topp nga nekk ak nit muy siiw mm-hmm. ba bu feebar nga toog te ni gaa yi dawee mënoon nga dawee noonu non non du ko bëgg wala waaw bëgg naa ko ak lan parce que mooy pap mooy papay xale yi xam nga nit tamit bu la wanee gor mm. foo jaar gore bu ma wan ne bu ma bu ma la doo ma gën a gore mm-hmm. da def ma wan ngor téye ma ci mm. samay défaut mm. malgré samay défaut mu téye ma mm. man tamit du ma ko rusloo parce que ñëpp dañ doon xaar ne dina dem moo du ko fi xaar de xam nga baat yooyu da lay gën a convaincre nga toog rafet na moo du ko fi xaar yëg ne mu ngi feebar day dem ma gën a toog ma gën a toog ñu bëri dama leen dañoo foogoon bu abdu di feebar may dem mais dama gën a toog di fante ñoom ba nii waaye sant yàlla rek mm-hmm. sant yàlla rek waaw léegi alhamdulilah waaw xeltal non non dootuma jooy damay ree <laughs> dootuma jooy damay ree man daal man daal man daal xani jaaxal <laughs> xani xani da ngay jooy di ree <laughs> xam da ngay wax saak ba mu émotion am man damay dem bay jooy mais da ngay da ngay changé waat rek man ma changé waat. waaw noonu la noonu la noonu la. maa noonu ngay yoree am. boo naree jooy nga dégloo ko rek mu fàtte jooy. waaw gis nga noonu la fa demee nag noonu hmm. la fa demee. Hmm. mais sant yàlla rek. bari ngay fem de xam naa dara moom te fem googu baax baax na trop. léegi xale yi ñu ngi jàng. léegi yaa ngi nekk say occupation xale yi léegi tout se passe ñu ngi jàng normalement. waaw xale yi ñu ngi jàng sant yàlla bu baax. Hmm. ñu ngi jàng normal. Uh-huh, ñu ngi jàng dégg waa xel dal. waaw maa ngi dégg waa ji xel dal. Mm-hmm, daal li des mooy na ñëw. waaw na ñëw baa ma dem. <laughs> na ñëw baa ma dem. <laughs> yow moom ñëw baa ma dem. <laughs> moom demal non demal bu mu ñëw. man nee naa ko bu ñëwul ma ñëw. man nee bu ñëw xaw ma na dañ may mere wala ko bu ñëwul ma ñëw. te ñaan leen rek bu ñëwul ma ñëw ba pare danga <laughs> parce que nag soxla na la de waaw waaw maa gën a sama wet maa gën a soxla sama wet franchement maa nga fa nekk di taxawaaw rek liggéey wàcc ñëw dugg ci biir loolu la loolu la yoru ko billaay billaay sax yow toogal bàyyi ko moom billaay billaay xadi moom franchement billaay yéene naa moom bu mu ñëw ndeysaan ndeysaan billaay demal ngeen bëggee foofu tuuti mhm. xappi fàtte lépp stress stress bi moom mi ngi suñu ginnaaw dëgg la dëgg la stress moom wax dëgg yàlla kenn waxatu ko maanaam fan yi ma feebaroon rek ndeysaan amul jaam wax na ma ko man yëg naa naa feebar amul jaam <laughs> amul jaam te su ma nee nii sa mënuma yow xool ni ma la yëgalee sa xat yow yëgoo dara hmm? yëgoo dara hmm? fu ñu la fekk ngay kii yow da nga yëgu yow ni ñu lay tiitali sa tiitaloo sa ba man sant yàlla Abdou hmm? comme am na ñoo xam ngi tëdd ci lalu hôpital mais comme man maa ngi dem ak ñëw rek sant yàlla bu baax naa la wax na ma ko mu ne ma xam naa dina la ko nëbbu mais <laughs> wax na dëgg yaram bee xaw a jagadi nag xam nga ku ma gis moom danaan kii dara jotu ko. fekk au fond am na lu ko daal. waaye sant yàlla rek. mais est que du stress noonu mooy génn. ah peut-être mën na nekk nag. Ah, peut-être mën na nekk. ko feebar mën na nekk tam mën na nekk. Ah, jàmm jàmm rek ngay am. mën na nekk tam mën na nekk jàmm rek ngay si diggante bi nag xam naa. xëy na du ñàkk ñaar wala ñett ñi yoo war a remercier yoo xam ne taxawu nañ la waaw waaw waaw moom xam naa moom mënut ta ñàkk. wala ñu bàyyi remercier bi. lii mënu see ñàkk bàyyi ma remercier rek. waaw ayca bisimilah man li ma la laaj yëpp jeex na. ah waaw xanaa kañ moom mooy li ma lay laaj ak li ma lay ñaanal rek gars yi may la visa rek nga dem say woon. incha allah rek laa lay na ah bu ko mënul ngeen daje Égypte. <laughs> waaw waaw waaw waaw maa ngi remercier nag. Hmm. Euh, première dame Marème Faye Sall parce que bu du woon moom làmbaay ñaaw jàpp na ci bu baax a baax début jusqu'à la fin parce que dafa nekk premier dame mais mi ngi gëstu mu ngi gëstu ay ay ay ay kiiwam daal. Mhm, mhm, mhm. te mi ngi jàppale en en plus Macky Sall. parce que neexul woon ab dëkk njëkk na def dëkk na feebar. mu jàppale ko mu jàppale ko mu daanuwaat mu waat mu jàppale waat. Tunisie la njëkk a yóbbu na ko Tunisie après may ko passeport diplomatique yóbbu ko Espagne xam nga dañ koy dellu di ko sant moom ngërëm gi moom moo ko moom. mais bu ma jógee ci moom damay damay damay kii Basirou Ka parce que bu du woon moom làmbaay ñaaw seetaan ñu ben yoon. taalibu Serigne Saliou boobu. Mm. Bassirou Ka seetaan ñu benn yoon. Mm. jàppale ñu ci tous les plans. Mm. tey mënoon na may ab du terrain. mais di defaat yeneen bi suuf yoo xam nit du ko yëg. dañ koy boole dañ koy ñaan ci barki Serigne Sall yu mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal moom moom taaliba Serigne Sall yu Bassirou Ka waaw dañ koy ñaan lu wér ndax bu dul woon moom laa làmbaay ñaaw. Mm-hmm. à part lu ci des nag moom maa ngi koy maa ngi remercier sama ñoom yaay. ah soirée. ñoom magu yaay yi ma nekkal ah ñoom Ndeye Gueye ah ñoom aana mm. ah ak xale bi ma bokkal place xati jatu mm. tàn njaay mbay nag dama koy remercier lu bari mm. parce que maag doom ñooy ànd penda ñooy ànd wax dëgg yàlla mënoon nañoo ñëw mën a déedéet doon fi doon nañ demee émission mais ko yaa ngi dégg fii sama kër la maa ngi koy ñaan moom tamit yàlla may ko wér ah di nuyu mère Yacine di nuyu xadi sama mag yaay ah sama yaay nag sama yaay bopp mooy soirée rek wax moo ma jur maa ngi koy ñaan gudd fan yaay dem ba fekk suñuy njëriñ ah maa ngi koy ñaan di ñaanal sama doom yu góor yi nag ak sama yaraq ñëpp maa ngi leen maa leen di ñaan maa ngi leen di ñaan gudd fan fan wér ñu yàgg koo feet ay at yu bëri bëri du nuyu mère nuyu naa lu baax Xadijatu Saw yéen ñëpp Aïda ah nuyu naa leen bu bëree bëri bari maa ngi nuyu di leen ziar lu bëri waaw ah, kay nuyu naa ñëpp <laughs> waaw du nuyu sama gorob góor nag bay Daam Gueye nuyu naa la di la wax papa dundal wéral mm. dundal wéral ba ñëpp bañ fekk ba nga fekkee seen njëriñu set incha allah mhm. waa groupe di gërëm nag Pam Maguette ak waa <laughs> groupe am <laughs> di gërëm Pam Maguette ak waa groupe am nuyu naa leen gërëm naa leen parce que parce que déplacement bi rek xam nga maa leen di gërëm yéen ñëpp di leen nuyu di leen ziar lu bëree bëri kontaan naa nag kontaan naa trop trop trop trop a kontaan mhm, kontaan trop maa gën a kontaan parce que bi ma ko waxee sànq yow dam ne ma kooku sa soxna la mhm. kooku sa kër la mhm. mën ngaa dem sax doo ma ko yëgal ak yow ni mu mel ak yow. Mm-hmm. mu wax lu rafet ndeysaan man ko non loolu moom mooy loolu. Mm-hmm. mais kilifa kilifa la. Mm-hmm. foog ñu tàgg ko moom mooy sa kilifa. foog ñu wax moom ba mu joxee ndigal mu woo la jox la ndigal. Mm, kon mi ngi noonu ndigal gi foofu la jaaree moo tax ba tey dama xëy rek. woo ko rek mu ne ma xaaral ma woo ko. Ah, bi mu lay woo boobu yaa ngi ndékk di añaale. <laughs> xam nga foofu moom comprendre nañ la quoi. xam nga yaa ngi ba bi ñu jëti sax si oto bi yaa ngi yoraale sa mburu di ndékkiwaale. waaw mais mais mais nag benn benn kii am na lu ma euh, mooy ñi mu nekkal France. ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kii ay Niass. ah Aïcha Jabaram. Hmm. ñoom Fallou. Hmm. xaritam yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar lu hmm. bari di leen wax déwéniti leen baal leen ma ak yal nañu yàlla boole baal. ñu fekk ko ay déwén déwén ba ñu mu nekkoon Espagne ñëpp maa leen nuyu di leen gërëm. xam nga juum. ku lim ju mais maa ngi nuyu ñëpp mm. di ziar ñëpp di leen wax déwéniti leen baal leen ma àq mm. yal nañu yàlla boole baal ñu fekk ay déwéni déwén ku ma ku ma tudd sa tur rek maa ngi jéggalu su ma waxee loo xam ne waruma koo wax maa ngi jéggalu bu mm. baax a baax a baax ah. di nuyu na sama chéri kooku nee ko nam naa la trop gaawul ñëw baa ma ñëw non dangay ñëw naka pam naa ngeen neen damay ñëw <laughs> waaw baax ne maa ngi koy ñaanu gudd fan ak wér incha allah <laughs> ah, kon xam naa foofu lañuy ñuy ah. xam naa ne xat yi mënoon bëggoon na nuyu ñeneen mais xel day fattu xel day fattu xadi si diggante bi même bu ñu ñibbee sax boo fàttee wooñu ñu ñëwaat nga nga keneen <laughs> yow loo bëgg moom yàlla nay jaam yow rek ak saa Kajoor rek loolu bëgg yàlla nay jaam le lion euh, comme ni may wax si tubaab nee na un lion ne jamais gaynde bu dee gaynde du dee gaynde ga gaynde ngay mën a ngay mës a doon nekk gaynde gaynde ga yaaram bi léegi yaaram laa la tuddee <laughs> Baye Fall yàlla na la yàlla may jàmm kontaan nañu trop trop trop yow moom sama ñaan ci yow xam nga ne du jeex sa ñaan ci man xam nga ne du jeex danga may ñaanal rek yow eh, mais yàlla yàlla def jàmm rek ba yàlla yàlla def jàmm ba xat yi ñëw man tamit ma ñëw ñu daje foofu <laughs> ah, ñu xàppi free yàlla na la yàlla may jàmm bu xadi ñëwee nag ñu def ak beneen émission toog nii en famille ah def ay barbecue doxante doxante les champs ba keroogee ma ànd ak Seydina ak ablaay rek biir Champs-Élysées ah dugg biir Marseille dugg Paris non ah. Paris du ma fa dem man Marseille laa Cartouche <laughs> maa ngi lay ziar maa ngi ñëw ñu def émission bu neex ak saa Kajoor ak Xadi insha allahu rabbi mbokki yaa ngeen jëf ab euh, Diouf gërëm nañ la de mooy Serigne Saliou ah euh, taalibi Serigne Saliou turandoo Serigne Saliou tànk dama ko doon wax lu bon far yàlla ma ne astafurlaa ma ne ko jël ndeysaan jël nga benn jikko ci sëriñ Saalum maa ngi lay tooñ far di wo far di saaraan loolu kenn du ko def alaaji Malick alaaji Malick a ngi ne moom tam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax borom Cambérène ak boroom Touba maa ngi lay jaajëfal koo koy Seydina <laughs> gars yi mucc ak mucc la waay jaajëf mawɗo jiinilam ɓaabine rapina so feydu bin harite